xew-xew bii di tàmbalee siyaar bi nag ci borom dëkk bi ki fi toogal borom daal moxti di sëñ Abbas noo ngi koy siyaar bu baax di ko ñaanal yàlla defal ko fan wu gudd te may ko wér te àggale yéene nit ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko taxawal borom daal moxti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 ci bis bi nga xamne amuñu lu may moom muy bisu borom kolon rafet lu nañ ko lol te ñaan yalla sunu borom mu may lu nu yàgg ko fekke ko and ak serigne bi di serigne Abbas mom mi nga xamne ne yi may wax lepp ci aw turum la ko jëlee mu yan ma benn lettre bo xamne su fekkone dama koy wutal ab adresse damay wax ne lettre bobu adresse modi أسماء آيات التشرف والامتنان والفرح بحضوركم في هذه المناسبة السنوية الكريمة سما كدون موتال أقدرس موي دمي واحد اللتر بمسرين بيجوخ موي رفت لو مبولم نيغا خامل تخاو نيوتي لجي بي فين تي بي تي مبوكو تي جف أك لو مانا دون تي سطي وايه نك téwal ko ci barab bi nga xamné mom lañu fi téwal ñun ñi ko loolu mooy li nga xam ne moo nu moo nu fi dajale kon loolu muy bis boo xam ne bis mënu koo gën a tedd ci nun ndax bis mënu koo gën a tedd ci nun ndax borom Daaru Muxti dara gën koo tedd ci nun borom Daaru ma Daaru Muxti dara gënu koo rëy ci nun loola itam nag moo delluwaat ci Serigne Touba kon yaar yooyu ci daje nga xam ne mënunoo am lu nu lu lu toll Serigne Touba mënunoo am lu toll borom Daaru Muxti seen yaari jëmm yi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 te juróomi at yu njëkk yi kenn xamul ci sëñ bi dara kenn xamul ci sëñ bi dara ñëpp ci yem juróomi at yu njëkk yi ba mu mat juróom juróom-ñaari at ak nangam juróomi at yu njëkk yi sax ci la yooyu amoon pexe ba wane ne borom de Serigne Touba nekkatul ndax bëgg yëngal borom daaru moo tax di ko nattu ba xam fan la toll waaye fekk na booba soxna su tedd sa soxna Fatou Issa Diop am na lu mu déyaale woon ak Serigne Touba te loole mu déyaale woon ak Serigne Touba ndekete ab denc la woon bu mu dencoon ci moom gis nga mbirum suñu borom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 jëmu ji yàlla beraloon loxo la jëmu ji yàlla beraloon loxo joo xam ne dafa meloon ne ab ab bëtu ndox bu neex boo xam ne di ñuy tuddee ndox mu neex ci ay jamono mu nekk bët boo xam ne mboolee murit bu mar ca nga daan naan mu nekk garab gu gu dëll goo xam ne gi gu sedd guy mboolee murit boo xam ne aw tàngoor ma sonal daa sonal foofa ngay serloo ji kooku muy borom dara moo kooku nag boo xoolee téeméer ci ginnaaw xam nga ne loolu mooy li amoon bi sëriñ bi demee bàyyi ko bi képp koo xam ne mas nga mar ci sëriñ bi daal ci borom daaru muuti ngay naane ji képp koo xam ne tàngooru ñàkk a gis sëñ bi jàpp na la ci borom daaru muuti ngay sarloo ji loolu mooy li nga xam ne mooy dem moo tax ma ne ismao lii an aoda bikum ila ilal wara ila asyada min miati sanatin haysu tajidu shaxsiyatan istisnaiyatan ton sabaru ayna ma in saafiyatan yaljaw ilaha al muriduuna inda stidadi sanai ودوحة مباركة يأوون إلى ظل إلى خوي الله الحجير وكوكبا انبثق منه النور الذي تهتدي به اليوم في فهم روحي تعالي بالشرق القديم. من قولي تم كو خامني بيديو بوم خامني بيمو فخ لير جي تي جوغي مام بروم دار مودي تي لا نيب دي مانا لير لو با خام ناكا لا ني مانا خامي نجاغلم سيرن توا ناكا لا ني مانا اندي اك سيرن توا مو نيكون كو خامني كي تام لب لو خامني دنج كوي مانرغالي خطبه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 ونزعت إسلامه وكمل إحسانه فقد كان متحققا بالمعنى الحقيقي لتاريخ الإرادة المتحرة من الغوائب والخالص من من موبقات الإفراد والتفريق والتفريق تفريق لور مودي بروم دار مودي يا ليب لو بولون دا فا بولون شريعه الحقيقه نك سي سيرن توبا نك يو خامني ليب لو خامني سيرن توبا جوني نكو سيرن توبا بغنكو خامنا نام كوي ديف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 ñi fi sëriñ bi yabal ci ay kilifay diine te ñëpp am na fi ñoo xam ne am na ñu leen teewal ci jataay bi xam nañ ne loolu ba ko sëriñ bi def da doon wane ne Ceerno mii kat mooy ki nga xam ne mooy royukaay bu mat bi roy leen ci moom